waaw HLM raay bi lañ nekk nii gars yi ñoo nekk ni tal pneu yi ne bi daal la ñuy bañ HLM raay bi ñoo nekk nii waaw ñeneen dañoo sonn si couvre-feu